salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yéen ñu ñuy seetaan yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar yéen ñëpp di leen baal wàq bu ngeen déggee suñu kàddu ndëkk yàlla moo dogal euh, jaamu yàlla bi di xale bu ndaw yàlla dogal euh, mu réer ay bokkam ba egsi ci loxo suñu yaay Fandiaye Seck wax dëgg yàlla euh, depuis samedi ba léegi ci la réeroon ay mbokkam gisuñu ko ñuy wax ay mbokkam wala képp koo nga xamante ne rek xàmmee nga xale bi xàmmee nga xale bi rek incha allah euh, boo ñëwee fii ci Yoff TV wala nga oote ci numéro bi nga xamante ne moom laa leen di jox di 77 483 68 51 77 483 cinquante 51 boo ci wootee rek incha allah dinañ la euh, wan yoon wi ba nga egsi fii ci Yoff boo ñëwee incha allah rek dinañ la tetal fi xale bi ne xale bi ndëkk fi mu nekk mu ngi nekk Ngaparou fi janoo sambeen ci jàkka ji bu ngeen demee foofu rek incha allah laajte yaa faatu Ndiaye Seck rek incha allah dinañ leen wan këram euh, bu ngeen ko bu ngeen xamul foofu ngeen ñëw fii ci Yoff TV wala ngeen woote ci numéro bi nga xamante ni moom lañ leen di wax muy 77 483 68 51 77 483 68 51 bu ngeen ci woote rek incha allah. ñu ngi leen di ñaan rek nge ku ko xàmmee rek wala mu xam ay waajuram mu woote ci numéro boobu wala mu dem nga ngapparu Sambène bu laajtee kër yaay Fan Ndiaye Seck rek incha allah. wala nga xam télé bi rek nga ñëw Yoff TV wala nga woote ci numéro yi nga xamante ni moom la ñu leen wax noonu incha allah boo ci wootee rek euh, incha allah dañ la indiqué ba nga ñëw fii ngeen baal ñu àq yéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.